salaam asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk eh, gannaaw ba ñu àndi ak yéen ci seen émission bii nga xam ne sii nii muy jaar-jaaru yonent yàlla Moussa alayhi eh, ba tax na fan ci ginnaaw ñu ngi doon ànd ak yéen ci yonent yàlla Moussa ba mu jógee fi nga xam ne sii nii moo di Madiyan ba war a jëmaat fi nga xam ne sii nii moo di Égypte eh, li nga xam ne sii nii dal na ko ci yoon bi yëpp. ak lim fi jànq wanteel yépp ba tax na lool lépp borom bi subhaanahu wa taala am lu mu namoon ci moom te moo di def ko mu nekk ab yonent ah ba tax yàlla Moussa alayhi salaam ab ah, borom bi def na ko mu nekk ab yonent wax ak moom ak kàddu yamu wax ak moom ba tax na yonent yàlla Moussa def proposition a wax borom bi subhaanahu wa taala ne ko dama bëgg sama frère bii di Haaruna nga def ko ab yonent moom tool ko ci man nga xam ne fu ma demee rek sama làmmiñ taq na waaye moom làmmiñ set làmmiñam seet na te am na élégance nga xam si fu dem rek moom luñ ma mën a wax wala luñ ma mën a num tuddee ti rek moom dana mën a ma waxal wax joo xam ne wax ju mucc si ayit lay doon ah ba tax na yonent yàlla Moussa wax na ak boroomam subhaanahu wa taala ah ñaan na boroomam tamit mu def ki nga xam ne sii nii moo di Haaruna mu nekk ab yonent ndax bu mu demee ci ki nga xam ne sii nii moo di Firawna mën a jàkkaarloo ak moom mën a jàmmaarloo ak moom wax ak moom waxi dëgg ndax Firawna mën a dellusiwaat mën a xalaataat mën a wëlbatikuwaat kon nag mbokk ngay wéy rek di abonné incha allah ci seen bi di ci leen TV ñu ànd ak yéen rekk ci seen émission bi histoire yonent yàlla Moussa alayhi salaam. nekk na ab yonent waaye tamit proposition bi mi ngi jóge ci yonent yàlla Moussa alayhi salaam moom moo ñaan yàlla pour frère boobu mu def ko mu nekk ab yonent waaye tamit yàlla pour mu gën a jox confiance yonent yàlla Muusa dana ko jàppale ci ci message bu difficile bi nga xamante ni si nii teg na ko ci loxoom ndax yonent yàlla Muusa dafa war a jëflante ak buur bu kàccoor buur boo xamante ni ni xolam dafa dee ci def lu bon ak wax lu bon ak jëflante gu ñaaw mu di firaaw mu ne te buur la boo xamante ne si nii defe na ni mooy yàlla ji ci yàlla yi ndax wax nañ ni firawn mësul feebar ñu ne tamit daawul sëqët ñu ne ñand sax daawu ko def ñu ne yoo sax daawu ko mat moom firaaw mu ne loolu tamit borom bi subhaanahu wa taala def ko lu dul jay ko rek mu gën a tëjjeerlu ci àdduna mu ne gis nga bi mu toogee ba jékki moom firaawn mu jékki-jékki di ana rabbukumul aala man maay seen borom bi gën a màgg ñu ne iblis tiit na tiit goo xamante ni si nii dafa daw si ñëw ba ci firaawn ne ko ah firaawn wax ji nga wax rëy na de mu ne ko yow nga ne yow yaay boroom bi gën a mag li nga wax rëy na lool de Firawna ne ko ah kon ma tub ko Iblis na ko ah aju ko jaru ko ndegam wax nga ko ba pare kay raawut waaye nag sa wax ji nga wax rëy na lool nga xamante ni si ni kon Firawna àggoon na ci ak kàccoor kàccoor boo xamante ni yéemul woon def dara ku ñemee dem taxaw ba wax wax ju rëy tol noonu ba nga xamante ni si ni iblis li muy kaccoor kaccoor amul fitu sañ-sañu di wax lu ni mel yow nga daal di koy wax yow sa kaccoor foo ko takk rek weesu na ko yàlla nag ci boppam di wan yonent yàlla Moussa alayhi salaam comme yonent yàlla Moussa foofu la yaroo te xam ne itam jikko yi firaaw yàlla ne ko nag am na fu ma jaaroon ak yow lu jiitu bisbi bi maa ngi lay fàttali ne jaar-jaar yooyu nga jaar nga bàyyi ko xel ba suma la waxee ne la naa la jàppale nga gëm ko nee mu ne ko mu ne ko wala qad manannaa alayka marratan uxra is awxaynaa ila ummi kama yuuxaa an iqsifiihi bittaabuut faqdifiihi fi lyam falyulqihi lyammu bissaaxil yaqusu aduun lii wa aduun la wa alqaytu alayka mahabbatan minni wa li tusmaa ala ayni nee na mu ne ko am na ay xéewal yu ma la jaarale mu ne ko it bi nga nekkee liir sa yaay jaaxle lool mu ne man yàlla maa wax ak sa yaay ne la ne ko sànni ko ci géej gi jël ko nga def ko ci kees nga sànni ko ci géej gi man yàlla dinaa ko sàmm delloosi ko ci sa ay loxo yàlla wax ko loolu ne ko maa waxoon loolu sa yaay ne ko jël ko nga sànni ko ci géej gi man yàlla dinaa ko jël ba delloo siwaat ko ci sa ay loxo kon mbokk épisode tey bi xam naa ne fi lañ koy yemale incha allah ngeen bàyyi xel rek ci kàttanu yàlla ak mbaaxam te abonné ci seen bi nga xam ne moo di ci leen TV ndax épisode yi xam si moo si des ah, bu ñëw rek ah, nga man koo suivre incha allahu rabbi jërë ngeen jëf